no man de panne naa ci digg tali bi nag te fii mécanicien sori fi trop nan laa war a def sax waaw kay xaaral waa woo waa service remorquage bu MSD Linguère ma remorquel ma sama oto yóbbul ma ko defaral ma ko ba mu nekkaat ci état bu normal MSD Prestige Lengema yéen lañ fi nekkal woo leen ci 77 301 jëf mbokk internet yi jàkkaarloo ak ñun ci TV point ñoo ngi leen nuyu waat bu baax a baax di leen ziare ñëw fi écrit jàmbaar yaakaar naa ne bu fi ñëwee heure rek Franc lañ fi jël chaque jour après timis mu bëri démb digganteem ak ki nga xamante ne moom mooy Forza yàlla may ko ci ndam combat bi nag préparation bi yàggoon na ndax yaakaar ne def na 6 mois wala 7 mois ndax le 2 octobre la ñu waroon a bëree yàlla dogal waa Fass waa Fass ñaanoon ñu pousse combat bi ba mois de mai ñu bëri dem yàlla may na ko ndam ñu koy féliciter moom Franc bu baax a baax di encourager ki nga xamante ne moom mooy adversaire am muy Forza di wax nag laa mu nii la di la nuyu bu baax bàyyi la nga nuyu mbokk internet yëpp su ko defee ñu yaatal ndax démb amuñu woon temps pour waxtaanee li nga xamante ne moom mooy combat. waaw Lamine maa lay fay xam di nuyu mbokk internet Lutte TV yëpp xam nga ak ñu ñuy seetaan ñëpp ñu leen di ñaanal jàmm aussi tamit waaye sant yàlla baax a baax sant Yesu Christa di sant sumay mbokku njaago xam nga di sant suma yaay bu baax di ko ñaanal gudd fan ak wér di nuyu aussi tamit waa parcelle ëmb 26 nuyu waa Cambérène ak waa Déggo waa Grand Yoff Opine xam nga waa Guédiawaye Pikine ñëpp maa leen maa daal monde entier di ñëpp ñi nga xam ne daal ñu ngi may jàppale aussi tamit maa ngi leen ñaanal jàmm bu baax. waaw di nuyu waaw di nuyu ñëpp daal di ziar ñëpp di nuyu tamit sama adversaire bi ma doon bëri muy Forza di ko encouragé di ko làmb noonu la xam ma mu nekkaat ci rek waaw demaat amul bàyyi nekk ci lu mu war a nekk rek espoir moo tëddee noonu te da ngay am suba nga ñàkk waaw. bi nga bëreeg soq ba pare est-ce que Forza nga doon xaar comme adversaire est-ce que sa cible Forza la woon. non nekkul woon Forza de maanaam sóor kiiw ma ko woon tamit quoi mm-hmm. waaw. man pour noonu waaw mais tamit comme jàpp naa yi instant bi lii dem combat dañoo war nañ bëre dañ bëre rek amul problème. lan moo leen boole li ñu la proposé woon date bu gàtt parce que combat bi mu taxaw dañ leen woon dans deux mois nga koy bëre loolu moo leen boole woon wala wala wala palmarès moo leen. loolu tam ci la tamit xam ma man xaw ma sax Forza ba xam onze combat am yooyu noonu parce que Forza tamit kenn du ko nappaale fenn champion la ba mu duggee ci làmb ju bëre man bëriwu ma comprendre nga. tey man su ma góorgóorloo man mi di xale liggéey ñëw ba dajeeg moom waaw damay damay damay sant yàlla quoi waaye. dafa mel ni Franc dafa teel a topp làmb parce que dégg nañ la sa biir wax nga ko bi ngay bëree ak mitrailleuse boobu maa ngi woon ci biir stade bi da nga teel a topp làmb làmb mu nekkoon sa sport préféré wala lan la. waaw Lamine man côté boobu moom dinaa sawar tontu quoi parce que man dama dëkkaloon benn mbër bu ñuy wax Xaarim Diouf moo dem si yàlla Moussa Diouf ñoo ànd. maa ngi ñaanal Moussa Dioum yàlla yërëm ko ñoom ñaar ñoo doon ànd ñoo takkaloon kër magu Mor Diouf la Xaarim Diouf moom dafa miskile woon nii dagg ak aussi tamit Moussa Dioum bu doon bëri daloon doon ànd ak raxam ci bàyyi laat muy sol tuwee tëre xam nga man man affaire yooyu dama ko bëggoon quoi affaire kay c'est-à-dire yooyu noonu quoi man mooy boobu maa ngi jàng école bon yooyu dafa ma dafa ma neexoon quoi waaye loolu moo kii ci làmb boobu maa ngi nekk lu ndaw xam nga loolu moo ma attiré ma bëgg làmb nag. waaw après nekk ci nag waaw nekk waaw nekk ci nag ba mooy samay début nii bi mooy bu la neexoon nga dem balaa suñu waa kër loolu naa dem di bëri ji fu may yëm bëri ji nii ay booy di nekk booy fu may bëri damay ñëw jàpp yow bëri yow mais après dag daan ba sama kër di ma tooñ na doo mbër bàyyi yoo yooyu noonu yàlla xam na ko am na sax non bu la neex nga dem laaj leen man dama naa ba ñu ma xoolal fu ma dem bëri ñoom ñu naan waaye kii sax ku demee billaay non waaw ah, mais yëfu boobu boo yëfu booy la woon quoi ma ko du booy ñi rek fu ma dem bëree damay bëree ak yow ba xam ne yow dama la daan yow nga daan ma mais. da ko doon def parce que da ko bëgg wala da nga ko da nga doon lii mën naa ci adduna lépp looy def amour la man nag xëy na tamit loolu ma ci nekkoon ñu may bëree di foo ñu may daan noonu xam nga xëy na loolu tey moo dem ba jox daf ma daf ma jo daf ci man jom bi waaw parce que ma teel dund yooyu noonu muy métti ñu may waaye boobu ngay nekk booy noonu nit jóge fee wax la dara loo ci moom mënoo ci dara mënoo xeex ak moom def dara moo la ëpp suur la yooyu noonu yaa ma gën a xam. tamit daf mel ni loolu la naa dem nañ ci combat Lac ak Garga Mbossé bu ñu xoolee image yi da nga feeñ nekk booy comme ni nga ko waxee matérialise kii waa parcelle nga xam nga ne premier combat moo njëkk dem seetaan stade su ma juumul Modou la. zéro laa dugg maa ngi sol benn t-shirt bu orange nii. bari laa dugg après ay dolf Mamadou Diouf Sogas yëpp seetaan naa ko non ba star seetaan daal kon la am doon topp. si. macha allah loolu am na solo nga bëgg ay mbër la tamit quoi xam nga ay mbër après dem di fréquenter leen yooyu noonu xam loolu la quoi ah wax dëgg yàlla lu ñu naan tarbiw tarbiw naa mbër ay mbër yeneen am na yeneen mbër yoo xam ne fii toogal naa ci mbukaay de mm. si ah yàlla xam na ko. fu ne mbapat si après nag dem bay ngi entraîné xam xam lu la war quoi nga nekk ci concentré wu benn moment la rek métti na méttiwul waaw concentration rek après ñu dem di dem ci àll bi di génn di bëri ñu mbapat yàlla duñu suturaal ñu dem di bëri gars yi commencé am na di la conseil naan la boo defee nii nii di nga yaa ma gën a xam waaye. ñu ñëwaat si sa diggante ak Forza combat bi taxaw. mu nekk mu waroon nekk octobre ñu pousse combat bi Gaston production nan la ñu def ba convaincre la yow ak sa staff ba ngeen nangu loolu yëpp aussi tamit parce moom day am kilifa comme ni ko Forza waxee rek parce que ñu pré makan ba mu ñu wooyee woo aas ne combat bi da koy yóbbu ba mois de mai man dama ko ne aas man bëriwuma mois de mai delloo avance loolu laa ko wax yooyu noonu après makan jëm boppam. après moo dem si laa dem kër per wax ko ba maa ngi ko nuyu bu baax wax ko ko sax nee loolu duñ ko def dañuy dellu avance bi après nag ci la Gaston jël téléphone am woo père xam ñoom ñaar ay kilifa lañu mm-hmm. waxtaan waxtaane per ne ma jël ko amul problème ma ne ko amul problème mm-hmm. man loo wax rek loolu laa def. Mm-hmm. waaw non suñu kilifa la maam père ba ñun moom la ñuy topp. waaw préparation bi yàggoon na mais dafa mel ni tamit metti woon na. waaw mais loolu xam nga sa normal aussi tamit quoi mais sant yàlla comme ñu ñëw nañ ba toog di ko xam nga waa ñettali moom santu quoi waaw. fekk naa la fii tamit ci koor gi euh, yaakaar naa moom boobu yaa ngi woor mais ñu gis nga def ay entraînement yu intense lépp physique combat bi lan moo tax nga nga préféré woon di liggéey ci élastique yeeg tëb bi affaire yooyu lan lan lan moo taxoon nga préféré loolu résultat bi ndax feeñ na ci bëri bi wala feeñul ci bëri bi. non feeñ na ci boo xoolee boo xoolee liggéey bi ma doon liggéey yooyu yii nii souplesse moom naa sama bopp magam certain sax am naa poids boo xam ne si combat bi dafa bëri si non yàqalu ma parce que moom naa moom naa sama bopp ko am ngi def moom li ma bëgg li ma bëgg def maa ngi koy def mu mm-hmm. yàqalu ma. nga doon liggéey par rapport ak say fort wala euh, défaut adversaire. nit moom nit moom nit nit ku ne daa am fort daa am mënin comprendre nga nit ku ne léegi sa mënin loolu defe naa dañ la ci yokk rek mais kenn warul la ko wàññil waaw. kon yow maanaam ci say entraînement yëpp amul dara loo xamante ne ko doon def di suuraale mën na adversaire bi wala fi nga xamante ne fa la non mais nit moom booy booy dajeeg nit xam nga kii lu am na lu mu ne doo ko fa may moo lay fay àgg mais nag démb am na fu ñu bëre boo xam ne sax man dama après mooy loolu daal xam naa ba ma demee ba sitaan ma ne lii moo xawoon kii tuti waaju say sànq la sama benn booy ñëw ama ñoo naan man li nga may waaj dafa bari fi nga taxaw noonu loolu placage ba mënoon na la yóbbu ma ne ko pourtant boo xoolee sama tànk bi écarté wul mais rasu naa quoi naa toog naa damaa toog samay tànk rasu tuuti mu ne ba mu plaqué daw ma waaw. lan moo la ci génnee résistance souplesse wala. dañuy si souplesse lépp ak sawaay Modou jàpp ma lagrosse di ma bëgg a rey mooy loolu. ñu gis sa dernier combat yi adversaire da nga leen doon woo ci xeex mais démb taxawoo pour jéem a xeex ak Forza tooñ ko tooñ ko. lan moo li li li la li ñu tiitaloon ci xeex moo tax wala la. donc man sama jëm bopp man loolu laa bëggoon mais xam nga làmb man lool man boo neexee nga wow ko su jamono nga laaj ko damaa préparé xeex lu bari ak kii ma lay wax ni Moustapha Moustapha Diakhaté mu nekk Belgique moom loxo yi daanaka toll na ni loxoy forzaay guddaay bi chaque jour dañ doon jël gant maag moom xam nga di ci lu bari sparring man loolu laa gën a loolu laa gën a parce que dama ne xeexkat la foog nga mënoo ñëw naan da ngay daw xeex foog nga xeex moom par après boo leen bëree boo leen jàppante ngeen jàppante mais foog ma ñëw xeex mais boo àndee nit yi làmb rek xam nga ak ay mag yooyu noonu ñu bàyyi si yëpp ñuy def di la jàppale pendant ay weer weer ñëw na bu defal nii xam nga foog nga leen di bàyyi xel tamit da nga leen di déglu quoi waaye. kon kon pare woon nga pour jihaad ak Forza est-ce que xam nga loolu la ci mënoon fekk lool. kan man non non dem am na ci boo xoolee moom ku mu dóor <coughs> dafa dóorum ma faxas indiwaat moom muy ñëwaat ak beneen kii bi may ñëw après ñu des si lañ dajee mu daje mos sama loxo yi dem foofu nag après doo fa mën a nekk naan dangay kii après léegi bëri moo fa sës dañuy naan xeex sax léeg buntu la la bu buntu amee après da ngay bëre waaw. voyage bi lan moo ko waral dafa am liggéey boo xamante ne lu mënul woon ñàkk la wala lan la. waaw loolu moom tamit si la. parce que man Lamine defe naa man bu fekkee physique la bu fekkee physique résistance ak doole mën naa ko liggéey fii ñu ne mais tamit nit ki war nga pour man war nga génn di dem gën a yokk sa xam-xam sa expérience aussi te bu ma demee tamit voyage ma dem ma ko waaw. lan lan lan fa yokk. waaw ah, voyage ma dem rëccuwuma ko force bi gën naa ko indi. bu gàtt boobu noonu am na doole boo boo fi. waaw parce que mu ma fekkoon fii mooy yaa ngi ma fekkoon fii mooy liggéey boobu liggéey naa sama xol bi bu yaram bi ba fu ma ko bëgg a yóbbu dinaa ko fa yóbbu. ma ko laajee Papa Sow barki démb biñ ne suba la seen combat xam nga biñ ne ginnaaw am na yoo xamante ne mu ne dañ koy denc ba làmb ji jeex moom lan la la moytu moytuloo woon ci Forza. non Papa Sow moytuloo ma dara yàlla xam na ko moytuloo ma dara. démb daal benn wax la ma wax ci làmb ji te waxul nekku sax ci Forza moytuwul ma dara parce que moom xam na ma bu baax waaw sax xam na ma quoi. waaw góor góor góor xam na Forza xam na samay xam na ma bu baax mais yàlla xam na ni moytuloo ma dara waaw damay ñëw damay ñëw dama xaar rek damay ñëw kii mu ne ma nii defal na dëgër yooyu def nii loxo bi góor soog moom ne li ngay loolu noonu li nga waxee bari ak moom noonu lu muy bañ la teg ko ko coono la waaw. loolu tamit lu ma lu ma seetlu la Franc adversaire bi ñu ko mënti jox moom li mu bëgg la lay imposer Franc dafa mënul xaar adversaire bi bëre ci kawam wala euh, euh, li ñu naan mbedd li nga jàpp ba am li bu ko bàyyi jig na. ah mais du question loolu sax bëre la da nga ñëw pour ursi ma ñëw pour ursi waaw gars yi xaw ma amul ngemb bu rafet amul xaw ma ngemb bu xaw bu ñaaw waaw na dem suuf rek la ma gars yi di wax waaw. kuñ la di jox bëre bi doo ko changé da nga koy da nga koy waaw ma bëre nag Lamine bëre ak nu ne muy ñëwee tey mun naa mën nga ñëw yow am li nga bëgg ne yéene bii nga am lii nga bëgg a bëree bëre bi nga dem ba si biir mu changé bërikat yi ñi ma li may wax bërikat yi xam nañ loolu bu baax tey mun nga ñëw bu combat bi gaaw du gaaw tey mën nga ñëw bu combat bi yéex du yéex xam nga bëre moo demee noonu mais lamb làmb la quoi mën nga ñëw leen di ko séntu fi côté bi mu demee côté bee. combat bi da nga koy abrégé. waaw mais ku ne ak nu muy rey ay pion rek waaw mais man daal bu may bëre dinaa indi fulla dinaa indi fayda dinaa indi jom dinaa koy indi. Euh, Franc ci biir lamb yaram bi day tàng bi ngay dugg si biir géej maa ngi naan bu leen ko ko jàppee yaram bee tàng bu leen ko ko jàppee xëpp nga nit ñi ndox ba max nga nit ñi loolu loolu lan la loolu lu naturel la wala. mais attends mais attends yow léegi yéen boo leen ñëwee yow ñun bu ñu ñëwee ci làmb. Hmm. yéen bu bu tàngul nee yéen ngeen tàngul mais Lamine lan la. Ah, léegi ni ngay tàngalee daa ëpp de. ah ah pourtant dafa ma lu gi ngay siif de waaw siif bi bu ma. siif daw yëkkati public bi xanaa. bu ma xaatee bi xëppaate ndox bi xëpp da ngaa xëppaate ndox. waaw comme ñu ngi jéegoon ne xam nga mais ñun moom ku ñu xam xamu kenn xamuñu ci affaire yooyu noonu quoi. non non non Babacar nee na fara bëri xonk la. <coughs> waaw. <coughs> nee na fara bëri day xonk. ndox yi ngay sotteeku mooy kii sa bët yooyu noonu xam naa loolu rek mooy. mooy xonkal bëdi mm. ndeysaan oh. <laughs> ñaaree nga de. dama dama maa xam fi gars yi xalaatee moo ñaaw rek quoi. non non hmm? non yàlla xam na ni loolu de. koo dara hmm. mais mbër moom mbër dëgg mbër dëgg damay gis ancien mbër yi doon bëre ancien mbër yi ma xam yi doon bëre dañuy wax ak yow sax mel ni ba léegi ñu ngi ci làmb. ñoom ñu génn seen kër dañuy jooy. waaw man démb la woon soog a dal quoi. moo tax absence bu baax bi. dama doon bëree xam nga di sama papa mooy ma bëri dem gisuma ko di sama yaay dong quoi. wax dëgg yàlla démb moom la ma soog a dal. macha allah loolu am na solo yàlla may naa la ndam démb comme ni ma ko waxee rek di la félicité waat di encouragé sa adversaire léegi far nga jëm. waaw làmb ji gars yi ñëpp xam gis nañ làmb mu demee xam nga dem drapeau souveraineté benn at. Lamine tournoi CEDEAO nga dem ba Niger jël say médaille amoo benn yàlla dimbali ma aw ma foofu benn defet ñëw fii ci arène bi di def samay parcours comme boog Lamine fu mu toll nii ku jërul danga ragal wala da ngaa bëgg loon neex rek waaw mais dañoo war a ñëw ñu bëre. say morom wala say grand. non samay morom fu mu toll nii gars yi lu ñu naan say say morom mënoo leen jeexal. koo ci daan kenn ñëwaat. wala wala mën nañu ko bañ a tudd say morom parce que ñu ñu jàpp naa ne ñoo la mag sax wala ñu jiitu la ci làmb mais mais su ma waxee lool maa ku mel ne ay guy gi ah ku ne ay ay ay ay ay ay Coens ku mel ne Moussa Ndoye yooyu moom wax dëgg yàlla man du ma wax du ma du ma jete benn mbër fleur Moussa Ndoye champion la guy gi champion la Coens champion la xam nga ñoo bokk liggéey bi. tey mun naa wax ci moom lu ñaaw suba mu ñëw defaat ma nii ñu ma bëgg ma bëgg bëri ma mu bañ comprendre nga mais actuellement man ñooñu teguma leen sama bër xooluma leen man fu mu toll nii da mooy may dugalaat Fass ma bëre Gris Bordeaux wala ñu dem Bawal nga jox ma tafaatin Tine wala ñu dem Pikine non non Fass kay am nga fa yeneen adversaire Gris 2 giri 2 punkal la de. non man kay wax ma Gris bu mag bi rek fu mu toll nii deux ba pare kay un ba deux ba pare. Ah, ku daan Forza moom. Gris nga war a mën a bëreel face. ñoom ñaar ñoo bokk ay adversaire Gris 2 ak Forza ñoo bokk adversaire. non non non bokkuñu adversaire kii toog na nekk na ci toog na lu bari bëriwul xam nga te aussi tamit daan naa waaw daan daan naa nañ ma jox kii Gris. te waaw tey for tey defe naa Gris bu puusoon. Forza day ñëw sampu. mais Gris Bordeaux kay comme comme comme comme instant bi am na combat digganteem ak Ama Baldé le 9 juillet. Gris 2 moo ñaari avance xewul. léegi bu ne la du ma bëree yow tànk bëree Gris 2 non amul ma xam ne ma xam ne daa def daa def lu ko gën a rek. wala da ngay delloo Papa waaw mën na waaw waaw ma waaw ma delloo Papa Sow laaj delloo Fass bëri ak moom amul problème eh, Papa moom. mais soxla woo Gris 2. non la. non man Lamine benn mbër diisul a fi hmm. fii. nga ne wala nga dem Bawol. ah am di Moustapha gaa yi ñemewuñu la de dégg naa te da ngay woote bëgg naa nga woo ma nag ñu dajale ah, waaw bëgg naa nga woo ma ñu daje. am na moom Modou Lo soxla moom muy moom parcelle moom xam naa ne Modou Lo moo fi adversaire. Modou Lo fu mu toll nii moom instant bi ku ku ci bëgg a jot amaana sax nu mu teel a demee ñu waaye ku ci bëgg a jot nii instant bi mooy loolu de maa ngi taxaw waaw. kay jël na ñu jël ba pare moom. waaw jë waaw moo tax ma la amaana nu mu demee rek waaw mais xam nga. fu mu toll nii daal bu yooyu jeexee yàlla na ko ci yàlla defal jàmm yàlla may ko ci ndam lu mu sumb yooyu yëpp te yàlla mun na ko yàlla na ko yàlla def te jàmbaar borom jom la waaw. sa manager am na loo lu mu wax bi nga bëree ba pare nee rek rek yéen la yow lay daw moo tax mu dem jëli beneen adversaire parce que nee na yéen doon nañ commencé wax sa combat ak rëg loolu ban analyse nga ci waaw man de xëy na moom manager moom moo wax comprendre nga waaye man. Lamine maa ngi fi pour làmb pour Samba ak Demba ak Mbaye ak ñoom ñëpp maa fi pour ñoom comprendre nga képp koo xam ne nag làmb coo boole nañu maanaam comme coow bi nii nii nii man damay am plaisir pour bëreeg yow ah, fi Samba bàyyi ma fi Demba. non man kay Reug Reug laa. non am na yoo xam ne du wax ay tur quoi mais. bàyyi sa wax sa manager. mu lu la wax moom nee na Reug la bëgg nga bëree. waaw non man kay maa fi pour ñëpp. mais rek rek instant bii moom gaynde gu mer la de xam naa ne moog Bombardier ñaari avance yooyu wax ñaari avance dafa xew de rek rek. acca pare nga. da nga ma pare nga xool ma démb laa bëri tey laa ñëw fi. xam nga damaa laa laaj nga wax normal. est-ce que bëgg ah. est-ce que bëgg na loolu. moom lu muy bañ ci loolu. yow ko instant bi xam naa bu bëggoon loolu dina ma tax xaar xam naa bëgg ko quoi peut bëggoon dina ko xaar mais nag. man kay tey moom bari na am na mbër mu mag mu mu wax ne nag wax dëgg yàlla combat bi Franc ak Reug Reug la woon. waaw mais ñëpp loolu lañ doon wax de mais xëy na bëggu ko bu bëggoon nit kenn ko force soo xam bëgg ko wala noonu bu bëggoon dina ko fi xaar mais comme mu dem na jëli leneen anyway hmm. kon daal naa la Gris may sens ak Tapha ak waaw mais 16 bi tam mu ngi Pikine de fu mu toll nii kan moo fa war laa fa mën a bëre. moom laa la laaj Pikine Pikine kay ñëpp am nañ ko. ñëpp am combat ah affaire yi nag gaaw a tas rek. waa Pikine mer nañ la. ah waa Pikine mer nañ la trop. kan mer. xanaa seetaanoo vidéo yi. Hmm? xanaa seetaanoo vidéo yi. def na yeneen mer yu mu war a meraat. ak yeneen jooy. ah jooy. ak yeneen jooy la waat bëccëg. baax na. arène nationale fekk leen. incha allah. lan mooy seen secret yéen waa parcelle cent pour cent. waaw liggéey rek bokku ndey bokku baay xam xam lu ñu bëgg quoi. waaw loolu kese la. mais démb dama gis nga gën leen ñaax lan moo tax ñaax boobu lan moo ko waral. Lamine loolu dama du ma taay di ko wax parce que fii ah gis naa fi ay ay ay ay ay samay morom yoo xam ne wala ñoo xam ne ñëwaguñu yàlla xam na ne bu leen defee nii tuuti. non yeneen Modou Modou xarañ loo ak yeneen Papa Sow waaw. Mhm. gis naa ko fi fii si parcelle. Mhm. waaw mais nañu concentré wu maanaam ñu bàyyi ay déglu kii wax yi déedéet non amul sens fii fii lu ma Papa Sow doon wax rek mu ne ma fi champion kenn mënu ko def kenn yaa ko def sa bopp loolu la ma doon wax champion nekkul kenn moo koy def yaa ko def sa bopp yaay dugg ci géew bi yaay bëri yaay daan yaay dëggal sa bopp waaw. am na solo kontaan nañ ci yow ngay tàggatoo. maa la gën a kontaan xanaa di gërëmaat gars rek ñu ci jàpp ñëpp ku ci mel ni ñoom Mara Anne xam ma waa <coughs> waa kii dooleel franc bi yëpp. ñoom Matar Lo xam nga ku ci mel ni ñoom Baba Diallo ñoom Père Bollé xam nga ak sama frère yi ku ci mel ni Ndou ak Jean ak sama sama sama sœur bi nekk fee France Aimé maa ngi koy nuyu bu baax a baax day naa dem ba mu seen combat bi mooy loolu tuuti mut <laughs> waa tuuti mu xam mais maa ngi lay nuyu bu baax a baax yow ak ñoom Marlouise ak sa jëkkër Aimé maa yow sa jëkkër Zak maa ngi lay nuyu bu baax a baax Marlis aussi tam maa ngi lay nuyu yow ak Jean ah maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu ñoom coach Jabon ku ci mel ni ñoom Boy Pula ñoom Badou Zaki Issa Sangomar Ousmane Fall borom France tamit maa ngi lay nuyu ak Théo waaw sama benn joo bu nekk France Paris maa ngi koy nuyu bu baax a baax waaw benn sama benn njaati gi quoi moom xam na fi may waxee maa ngi lay jaar aussi tamit du nuyu grand Samuel ah maa ngi koy nuyu borom France njaago boobu moom. son na ci combat bi trop amul lu mu ci dajul waaw di nuyu waa Belgique maam Kumba Khalifa Sankere xam nga di la nuyu bu baax a baax ak ñoom Ami maa ngi la nuyu ñoom Mbappé ak ajaa ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu di nuyu ñëpp ñi nga xam ne daal Lamine jàppal nañ ma ku ci mel ni Pape Fall tamit borom nangaan moom mu Espagne maa ngi koy ziar waa Jirnda waa Kaadu waa fayaako waa Diouroup Djilas Joal Fadiouth dim la joxe ñu ñoom Aziz ñoom Modou jox Paul Sène gars yëpp daal ñu jàpp ci affaire bi rek ak ñoom Rémi Rémi René ah Gonglé maa ngi bu baax a baax grand jox Diokh mu ngi ci sapeur pompier bi fii parcelle moom sama grand la maa ngi koy nuyu di nuyu sapeur pompier yu fa nekk ñëpp waaye di nuyu ñëpp waa maa leen ziar bu baax a baax sapeur pompier aussi tamit sécurité bu ñëwoon démb fii nii parcelle xam nga policiers maa leen ziar bu baax a baax parce que démb tamit ñoom jàppal nañu quoi dimbal nañu bu baax a baax. ci yoon bi ba yenn yi amu ci xam nga ñu leen di gërëm bu baax a baax di leen sant waaw ñi nga xam ne képp koo xam ne daal def nañ fa loo xam ne daal kiiwu rek xam ma nga jéggal ñu xam ne tamit ñëpp mënoo yow ngay bëre mais mënoo canaliser ñëpp waaw mais Lamine nga may ma ma ñi rek ngi nuyu grand vieux ba ban borom étoile du lac ak grand Samuel Mendy Théo maa ngi lay nuyu borom Paris Moussa si président PCA port maa ngi lay nuyu Mansour Ba Seydou Ba maam Père Ba président jàmbaar Medoune Pro Auto korsu korsu korsu suka korsu lato korsu yaaram Yves Ndiago Or waa waa ban bi waa Déggo Cambérène korsu Papisco korsu Lamine Olympique Moussa borom marché Gueule Tapée Abdou Gossé borom dibiteri l'international Formose Mendy doom nday Olivier borom Grand Yoff yaay monsieur le ministre Amadou Ba aussi tamit Pape Malick Ndour ñu ngi koy nuyu Ahmed Ndour maa ngi koy nuyu bu baax a baax maa ngi nuyu ñëpp encore une fois nuyu sama waa di leen jégalu xam naa ne affaire yi métti na trop Cheikh Wagué maa ngi koy nuyu maa ngi nuyu Dali Dali maa ngi koy Mar mais bàyyi leen nag yaa ngi dimbale bàyyi leen daj maa ngi nuyu ñëpp ak liu coor aussi ah, maa ngi koy nuyu waaw dem moom ñëw na xam nga jàpp ci bu baax a baax waaw maa ngi nuyu ñoom ñëpp sa copain pap kub waaw kub borom <laughs> borom parfum yi neexee Lamine bàyyi ki ngay tooñ kub kub la nag bàyyi ki ngay tooñ mais kub kub amul may ko waaw maa ngi nuyu sëñ Mbacke borom aslem ak ak kii ñu doon sax ñang baalo suba maa ñëw aslem sëñ Saliou Mara ziar naa ñëpp waaw képp ku ma kiiwu rek maa ngi jégalu nag xam nga yoo xel day waaw taf si ko business maa ngi koy nuyu bu baax waaw doom nday Bamba Bois Mon Ndiaye aussi tamit xam nga waa ji sonn na ci affaire yi baax waaw le juin saa Touba lañ tuddee drapeau te démb gis naa ko bi nga daanee mu daw. waaw parcelle la dëkk xam ma day sot moo tax waaw le 10 ñu ngi joxe rendez-vous ñëpp le 10 incha allah drapeau saa Touba ñu fekkee ko te teewee ko ah waaw bëgg nañ ñëpp sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp jaajëfatee merci. man de panne ci digg tali nag te fii mécanicien sori na fi trop nan laa war a def sax waaw kay xaaral ma woo waa service remorquage bu MSD Linguema remorquel ma sama oto yóbbul ma ko defaral ma ko ba mu nekkaat ci état bu normal MSD Prestige Linguema yéen lañ fi nekkal woo leen ñu ci 77 301 29 58